Fatoumata Gueye Diouf euh, ñu ngi lay nuyu. jërëjëf euh, yow yaay directrice euh, stratégie suivi ak évaluation ci ministère de la microfinance ak économie sociale et solidaire nga nekkit adjointe au maire ca HLM jiite tamit muy coordonnatrice nationale bu coalition Macky 2012 Macky 2012 boobee la ñuy tàmbalee waxtaan wi gannaaw la ñuy fi dundoon tamit ndax bëri na ay départ waaye tamit tendance yu ñu ci gis ban taxawaay la coalition bi am jamono ji fan ngeen tollu waaw euh, jërëjëf euh, Gomis ñu ngi lay sant di la remercier ci euh, occasion bi nga ñoo may invité ñu ko ji ñu mën a waxtaan ak askanu Sénégal donc di la ci jaajëfal li ñuy wax rek moom mooy coalition Macky 2012 comme ni nga ko waxee <laughs> daan naam am na am nañu génn waaye dañuy jàpp ni maanaam kuréel boo gis surtout muy kuréel kuréel politique ay nit bu ñuy ànd bu ñu demee ba ci biir mu am ñoo xam ne xëj na gisatuñu seen bopp ci li nga xam ne moom la ñuy def dañuy dañ jàpp ne neexee mën nañu beru wala bu fekkee ne dañ dem ba ci biir am ay agenda yoo xam ni kenn comprendre ko wala kenn mënu ko gis libre nañu ci génn hmm. waaye du génn yoo xam ne fi mu toll nii dafa nasaxal wala dafa nërmeel coalition Macky 2012 coalition Macky 2012 tey la gën a taxaw tey la gën a euh, booloo tey la gën a ànd euh, taxaw temb ci li nga xamante ni moom la am pour def ko ci liggéey ci Sénégal bi waaye it pour euh, jàppale président Macky nga xamante ni moom mooy président wu coalition bi. Hmm. ni nga ko waxee Macky 2012 euh, ca la woon ngir kon euh, jàppale candidature njiitu réew mi Macky après nag mu am li ci juddu Benno ñëw na fi ba léegi yëf yi di gën di yaatu ñenn ci yéen yenn saa ñu dégg ci suuf ni kon ñu mel ni ñuy ñaxtu ndax gisuñu seen bopp. rawatina ci ay ndombal tànk yu bëri wala bokk yu gën a am solo ndax yow loolu nga gis ndax sentiroo tamit benn manque de considération waaw xam nga xëj na yow loolu nga gis wala xëj nañu koy wax loolu ñu gis waaye loolu du lu nekk ndax dama yaakaar ni tey jii ñun li nga xamante ni moom lañu ñu sëq euh, président de la coalition muy euh, le président Macky Sall. Hmm. du loo xam ne dañ koy teg ci tali du lu ñuy teg ci mi. Hmm. ñun la nekkee woon ak moom ba tax ba tax mu jël réew mi loolu lañu ñu nekkee moom ba léegi ànduñu ak moom pour di won nit ñi askan wi dañuy naanandoo ak moom wala dañuy naanandoo ak moom attaaya ñu dañu bokk ci ñi nga xamante ni dañu gëm ni Sénégal gi fu nga liggéey ko dangay wax tuuti jëf lu bëri ñun ci loolu lañu nekk euh, yaatal nag li hmm. nit ñi foog ne dafa am ñeneen président jël teg leen ci kaw ni ñu déedéet dafa fekk dañu toll foo xamante ne dañu war a yaatal euh, bu fekkee ni dañu bëgg liggéey Sénégal bi ndax pàcc yi ñu war a liggéey dafa bëri. Hmm. kon yaatal boobu euh, ñi ñun ñi nga xamante ne ñoo porté président de la république ak la haute magistrature mais dañ koy mën a ànd ak moom ibbeeku pour nit ñi mën a ñëw jàpp ci liggéey bi. kon daal doylu ngeen ci poste direction yi rek kese ak. de du question doylu am nañ ci luñ ci gën a am dolli waaw mais du loo xamante ni ñun dañuy taxaw ci mbedd bi di fësal ni ñooy naan ndox moom café ñooy naan ndox moom attaaya ñun dañuy privilégié liggéey bu bari wax tuuti. Hmm. ñu ñëw nag madame ci xew-xewu jamono ndax bokk nga ci kuréel bi nga xamante ne dañ ko samp ci Sénégal ay soxna leader def ko di yëngatu ci wàllub jàmm démocratie tamit euh, gannaaw lu ñu fi dund. ak bi ñu tegee loxo Ousmane Sonko li ah, jàmmarloo yu métti ñu fi dund ah, ban taxawaay la kuréel googu na ma andi ci xeex bi. waaw loo xamante ni gis nañ ko te kenn rafetluwu ko moom mooy yëngu-yëngu yi nga xamante ni xewoon na fi ci jamono yi passé ba tax euh, euh, vraiment euh, madame le ministre Zahra Iyane Thiam ci benn plateau télé ànd ak madame la ministre Ndeye Fatou Blondin Diop ñu jël seen ten responsabilité taxawal benn kuréel boo xamante ni kuréel gi dafay taxaw temm ci euh, jàmm am euh, respect wu bànqaas yi nga xamante ni ñoom ñooy ndëgër laayu réew mi euh, ak respect wu démocratique état de droit yooyu ñu bañ leen na faxal hmm. ndaxte li ñu seetlu moom mooy am na loo xam ne bu xasee ba am jàmm dootul amati Euh, gis nga Gomis li euh, ñuy wax euh, peuple hmm. li ko li ko li ko lal moom mooy dañu bokk benn ciment boo xam ne moo tax ciment boobu culture daf ciy bokk religion daf ciy bokk yu bëri da ciy da ciy ciy bokk tey jii pour peuple boobu yëpp war a mën a mën a ànd nekk tamit il faudrait que mu am ciment boo xamante ni ku ci nekk ci sa bopp da nga koy delloo ci état de droit da koy delloo ci respecté bànqaas yooyu nga xamante ñooy dëgër laayu euh, euh, état bi pour que équilibre pour que mu mu maanaam tolloo tolloo bu mën a tolloo suñ ko deful rek euh, jàmm day sooxe te bu ñu ko deful it bu fekkee ne naam nation bi dafa dafa suude te institution yi dañ leen nasaxal jàmm foo ko fekk day day day day nasax ci dëkk bi looloo tax kuréel boobu daa dee boole ak ay jigéen ñi nekk ci wàllu politique bi ñi nekk ci wàllu société civile mhm. ñu àndandoo def benn say pour xeex li nga xamante ne moom mooy lépp loo ni ne fitna lay ànd mhm. Mhm. tey jii di ci ñaan ak euh, askanu Sénégal jigéen ñëpp ak fuñ ci mën a nekk ñi nekk femme leader yëpp ñu ñëw gën ci adhéré ndaxte kuréel boobu dafa war a nekk loo xamante ni li warul la yem fii rek dafa war a euh, wéy Hmm. ba fi ñu jëm dafa war a wéy. wéy euh, lu ko nit jëndee rek jar na ko. Hmm. wéy kon ngir jàmm ak kon démocratie démocratie googee ay euh, kuréel ñuy natt euh, réew yu bari ñu daal di def ay xayma yu mujj ñu gis ni sunu réew dafa mel ni lu deltu ginnaaw ndax gis nga ni Sénégal jamono ji démocratie bi dafa na sax. waaw xam nga heureusement sax ba nga ne dafa mel ni man jàpp naa ni sunu sunu réew delluwul gannaaw. Hmm. et maa ngi sax euh, vraiment euh, sant bi nga xamante ne tey maa maa ngi dégg seen benn naataango ci revue de presse muy wax naan am na fi kilifa gu mag bu nekk ci ci ci kuréelu droit de l'homme hmm. droit de l'homme yi mi ngi naan moom d'accordul sax ci boobu xayma ñu def hmm. euh, amaana am na ci ay yeneen critères yu ñu ci dugal loolu yëpp lu nit mën a mën a mën a lu nit lu ñu mën a waxtaan la mais jàpp nañu ni suñu dëkk delluwul ci li ñuy wax démocratie par contre ndax li nit ñi tamit di di di di di jàpp démocratie tamit du du taal leen dëkk bi du def leen lu leen neex hmm. nit ñi toog di leen xool dëkk bi dañ ko war a dañ ko dañ ko war a organiser am na loo xam nañu ne bu fi warul am war ñu bàyyi mu am fi waaw léegi bu fekkee da nga jàpp ne li warut a am di taal dëkk bi bu xewee dañuy war a au de la démocratie ñu ne dañ koy bàyyi mu am mais loolu la mooy lan loolu mooy lan donc hmm. il faut que façon nit ñi tamit jaxase lan mooy démocratie ak lan moom mooy euh, jaxasekratie hmm. parce que damay jàpp ni euh, jaxasekratie la nit ñi bëgg jël méngale ko dëkk démocratie hmm. kon man duma nangu ñu ne suñu dëkk dafa dafa régresser sur le plan de la démocratie au contraire Mm. ñu gis ci mbirub uh, coowal Ousmane Sonko aji Sarr boobu ba yëf yi tàngee ñi ànd ak Macky Sall yëpp daanaka ñi bokk sax ci coalition Macky 2012 Benno ñoom ñëpp a na teg ngir ñun ñi sax ñu doon yëngatu ci wàllum tasum xibaar ngir jot leen wala am plateau ñoom lu jafe la li waraloon loolu est-ce que bàyyi leen yenn saa yi tamit xeex bi njiitu réew mi moom kese. waaw mais xam nga euh, gëbi mm-hmm. nga yaa ngi naan euh, taskatu xibaar yi pour ñu jot leen sax dafa jafe woon. damay jàpp ni sax xëj na loolu amul parce que man man woowu leen ma ci par exemple waaye fa ma ca war a wax naa ko fa. Hmm. mais ce qu'il faut relever retenir moom mooy. Hmm. bi muy doog a tàmbali. problème bi du problème mu problème la bu nekk ci diggante ñaari citoyen ñu séq boole ci nag ay citoyen yoo xam ne ku ci nekk da nga majeur ñu séq seen mbir kon gisuma lan la ci politique yi di wax surtout ko nag fee yoo xamante ni du fee bu njëkk ci Sénégal du fee buy mujj ci Sénégal donc lu mel noonu lan la ci kàddu politique yi duggee gisuma ko moo tax ñëpp dañ ne tekk di leen seetaan politique ñëpp dañ tekk di leen seetaan waaye ba ñu demee ba nga xamante ni jël nañu mbir moomu ñu teg ko ci place politique bëgg ko andil ay affaire ay ay ay ay ay euh, complot laak yu kenn xamul dugal ko politique alors là ci nga doog a gis nit ñi di réagir donc nit ñi politique ñu ngi réagir fa ñu waree réagir jamono ja ñu waree réagir. Hmm. léegi mu mel ni ngeen tàmbalee tamit réagir ci wàllu politique ndax gis nañu bu ñu fi jëlee état de catastrophe sanitaire bi rek ngeen wane seen bopp ci ab meeting ci yenn gox yi ci biir réew mi ba sax fi ci banlieue ak fi mu mujj yëpp xam nañ ko li waral ci jamonoy mbas mi nga xamante ne njiitu réew mi ci boppam moo ne mbas maa ngi fi ba léegi jóge gi fii ngeen di mobiliser noonu. xam nga euh, euh, bu fekkee ne li jëm ci wàllu li xewoon Pikine loolu ak même li ñuy organiser li waa APR organiser xam nga def ci am connotation boo xam ne du ma ci mën a àgg loolu. Mhm. waaye li may mën a wax moom mooy. Mhm. Euh, bu fekkee ne parti dafa toog ba ci yàgg mu jàpp ni war na war a mën a waxtaan ak i ak ak base am. Mhm. dellu def une remobilisation des troupes man yaa jàpp naa ni loolu dara nekku ci surtout que nag nga xam ni ñoom ku ci nekk ca la nga organiser bu ñu xaymaa la fa teewoon. néew na loolu par rapport ak semaine passée bii yi fi leader yi politique def génne Sénégal yépp ay ay xale yu dul jeex ay mbuucaa mbuuc ay mbojo mbojo ci tali bi bu parti ab parti demee ba toog xam ne dafa war a waxtaan ak ay membre am jàpp naa ne loolu war naa mën a ne donte nag sax dañu nekk ci période crise sanitaire ñu war a respecter yenn yenn yenn norme barrières yi hmm. euh, euh, lu mel ni takk masque lu mel ni def benn euh, distanciation fi dàndante hmm. waaye nag dañuy sant tamit ba nga xamante ni jàngoro bi fi tool nii Sénégal population sénégalaise te bëri na fi mu toll nii nga xamante ni ñi ngi ñàkku hmm. ndax Sénégal bokk na ci fukki dëkk yi nga xamante ni ñam ñooy njëkk am jumtukaayu ñàkk yooyu te loolu mën nañu mën nañu dimbali ci lu bari hmm, hmm. leneen li moom mooy c'est pas parce que tamit loolu am nañ ko que dañu war a euh, euh, commencer di bàyyandiku. Hmm. mënul war nañu ko def lenn it am na mooy fi mu toll nii fi mu toll nii euh, dañu war a seet naka la ñuy dunde jàngoro bi jàngoro boo xam ne ba muy ñëw tàgguwu la gan goo xam ne ba muy ñëw tàgguwu la buy dem it doo xam kañ lay dem dañu war a xam nan la ñuy dunde jàngoro bi te dund ak jàngoro boobu nag moom mooy lépp activité yi ñu war a di am dañ ko war a tàmbalewaat hmm. jamono résilience dañ ko weesu ñi ngi ci relance te hmm. booy déggee nag ñuy wax relance relance nag moom mooy dangay ànd ak la ngay te la nga nekk xëj na mu nekk sa liggéey wala xëj na mu doon activité booy def dangay ànd ak moom di dund ak moom waaye jàpp ni ci sa xel ni euh, lan euh, jàngoro ji mi ngi fi ba léegi mën na faagaagal mais activité nag mënatuñ ko teg il faut ñu jàng dund ak jàngoro hmm. ñu des ci wàllu politique ba tey en tant que adjoint au bu HLM seen mandat yow ak seen i naataango yëpp daanaka jeex naatum 2019 ba léegi waaye ba fi ñu toll xamaguñu élection locale yi kañ lay doon loolu noo ko jàngatee ak lu waral retard bi. waaw euh, euh, xam nga loolu moom vraiment man dama jàpp ne nit ñi dañ ciy wax te xëj na dañuy fàtte wala. Euh, wala wala daal euh, xam nga président Macky Sall bi mu jëlee li mu njëkk euh, may sénégalais te mu nekk loo xam ne àdduna si yëpp dañ ko rafet lu moom mooy dafa organiser dialogue national hmm. te dialogue national boobu ci biir dafa am dialogue politique def naa ne loolu kenn fàtteegu ko hmm. lii ci biir dialogue politique boobu te waxoon ne ci njalbeenu loolu lépp loo xamante ni ñi set waxtaan yooyu ku mu nekk non aligné fa mu nekk euh, opposition te fa mu nekk euh, état lépp loo xam ni euh, d'accord nañ ci moom du ci sax am xel ñaari xel da koy mandargaal da koy da ko da ko da koy da koy dëggal da koy da koy def mm-hmm. léegi bi ñooñu ñëpp dajee dafa am poñ yu bëri yoo xamante ni d'accord nañ ci mais daf ci am poñ yoo xamante ni dañu ne ñoom te opposition bi ñoom ñoo ko waxoon ñu ne ci fichier électoral bi dañu bëgg ñu def auditu fichier électoral bi te bu ñuy def fichier audit fichier électoral bi euh, cabinet bi nga xamante ne maanaam moo war a def liggéey boobu dafa war a nekk cabinet bu indépendant beneen bi ñu ne ñoom dañu bëgg ñu def évaluation processus électoral bi donc comme président joxe woon na kàddoom te daf ko waxoon donc loolu daf koy dëggal daf leen ci daf ci d'accord daf leen di ci ànd ak ñoom daf leen di ci bi mu toll nii recruté nañu cabinet bi nga xamante ni moom mooy def liggéey boobu commencé nañu liggéey bi te li nga xamante mooy évaluation processus électoral bi dañu waxoon na ni mën lu muy tuuti tuuti tuuti tuuti dañ def juróom benn weer xam nga li nga xamante ni mën ta ñàkk juróom benn weer ça veut ko loolu moom mooy euh, war na ëpp juróom benn weer hmm. waaye bi juróom benn mooy lu mën ta ñàkk kon moo lay wan loolu lu sérieux la léegi bu ñu nekkee léegi ci boobu ci boobu yoon di def audit fichier électoral bi bëgg évaluer nit ñi bëgg a ëlbatiku naan nañu organiser est-ce que loolu fi mu toll nii war nañ ko war a mën a xëy arrêté man jàpp naa ni loolu nga xamante ni ñoom moom la ñu xalaatoon ni fichier électoral bi dañ ko war a xoolaat defe naa ni pour ñu am ñu am constance defe naa ni foofu la nit ñi war a mën a teg seen loxo teg seen baaraam. Hmm. ñu jeexale ah. ko ci ponk bi gannaaw kon li fi xewoon yëpp njiitu réew mi jël dogal nekkoon dafay xoolaat doxalinam ci wàllu politique sociale rawatina li mu war a jagleel ndaw ñi loolu ban taxawaay la ci ministère microfinance ak économie solidaire ak social war a am waaw ministère de la microfinance et de l'économie sociale solidaire dafa am euh, rôle bu ngand ngand bu rëy boo xamante ni tey jii war na ko war a mën a jouer ci relance boobu ngay wax ndaxte ministère bi dafa am ñaari banqaas banqaas boo xamante dañ ko tuddee microfinance ak banqaas bi nga xam dañ ko tuddee économie sociale et solidaire hmm. te ci banqaas yooyu yëpp mën am na ay ay jumtukaay ay levier yoo xamante ne tey jii mën nañ ci eh, jàppale ndaw yi eh, gunge leen kàttanal leen ba nga xamante ni eh, seen nekkin ci dëkk bi seen nekkin ci biir Sénégal bi dina gën a ñoŋ hmm. kon tey jii levier yooyu nga xamante ni ministère bi am na ko buñ ko gënee dooleel war na mën a te dina jouer rôle am ba nga xamante ni xale yi dinañ gis seen bopp politique yi nga xam ne moom la état bi teg politique yi nga xamante ni ñoom fi mu toll ni moom la ñuy laajte pour gis ci seen bopp Hmm. ministère boobu ma fàttali ni yow yaay euh, directrice des stratégies ak suivi évaluation nga nekkit euh, adjointe au maire bu HLM jiite wala bokk coordonnatrice nationale bu coalition Macky 2012 madame Fatoumata Gueye Diouf Rewmi fem mu ngi lay gërëm bu baax. maa ngi leen di remercier yéen i tamit mais ma may ma jàkkaarloog tey war a mën a waxtaan ak askan wi. Hmm. ci pompe yi nga xamante ne ñor na leen maa ngi leen di ci remercier bu baax a baax.